Nous dama fille si avec euh, l'instruction de notre coordinateur de l'équipe euh, le ministre Moussa Baldé c'est pour que nous puissions démarrer effectivement la vente des cartes. alors nous dégoté en deux, la main dans la main pour appeler parti bi jappelé Macky Sall ndax tay kene wutul dara seetul dara Macky Sall mooy seen candidat loolu la ñu wax donc carte yi danañ ko jaay nee nañu sax ñom luñu leen jox 32000 carte loolu objectif bobu dafa touti si euh, Rufisque Ouest kon bak euh, jigen yi ñew fi tay sen mobilisation bi yeen sen bop journaliste gis ngeen ko ak luñu fi wax né Macky Sall mooy seen candidat keneen amul mané ko loolu ñom presque sen carte bi dafa ànd ak kaddu ñuy wax partout ci Sénégal mooy président de la République amuñu ku mel ni moom mosuñu am ku mel ni moom. def nañu matrice bi wone nañu euh, ils nous ont montré wone nañu ñan ñooy commissaire politique yi commissaires yi aussi jox nañ leen carte yi signé nañu décharge yi wax nañ leen yan quartier la ñu ku nekk deux trois cinq six quartiers. alors ñu ngi tàmbale tey si goudi ils vont démarrer opération bi pour que ñoom objectif 32 000 cartes yi ñu wax nous avons sax le alors lolo, il faut que nous dolli kon engagement bu mot sëkk laa fi gis.